xam naa sénégalais yu bëgg bëgg nañ ko laaj. Mm-hmm. est difficile donc euh, de remplacer docteur Aliou Sarr mi nga xam ne yàgg na ci lan mooy jafe-jafe làmb ji bi nga ko jëlee yëg nga ne diis na wala lan la ndax jafe ne remplacer ku mel noonu jàpp nga ne mu ngi dem yëg ay coono wala nekkoon na lu yomb yore g de lutte. bon Alioune docteur Alioune président Alioune Sarr donc je dirais maa ngi koy nuyu d'abord da ko jaajëfal ci liggéey bu mu def ci làmb ji. yàgg na fi mais liggéey na fi. Hmm. liggéey na parce que soo gisee suñu mission wala suñu liggéey yomb c'est parce que. Hmm. am na lu ci fekk fekk ñu fi zéro taxi lu bëri moo ko moo ko fi indi te xam nga li nit ñuy fàtte gis nga war nañoo li nga posé léegi xam nga dañ la ne lii dañ ko ciy yokk on a un règlement dynamique. Hmm. parce que c'est sport de chez yeneen sport yëpp dañ ko dañ ko dañ ko jéggaani. indi këyit yi. footballu taekwondo boxe moomuñu ko dañoo fekk ñu légiféré ko ñu bind ko fële ba pare ñu indi texte yu adapté ko fii mais fii nag ñun ñoo bind suñu bopp suñu teg moo tax chaque fois mu am lu ñu dab ñu dugal ko ci biir. c'est comme ça c'est pourquoi wala moo tax mu dynamique remplacer ko yomb na yombul ça dépend ci approche bi ngay am parce que dama ne ñun remplacer wuñ ko mais. on vient le on à Alioune Sarr. xam nga dafa am ñu fi newoon ñu dem mu ñëw topp ñoom ñu nag fa mu bàyyee foofu lañ sofoo pour mun a jëmal làmb kanam. Euh, difficile na difficile parce que avant le CNG avant 94 maa ngi ci làmb ji tëgg ay làmb à kaw également en moom Aliou Diouf Boy Ndour euh, comment waaye Boy Ndour bu Boyard dama ko tëgg au stade Lamine Gueye. tëgg naa Mame Ndiabane bi ak Mbaye Cissé bu Fass à Kaolack également okay. ça c'était bien avant n'est-ce pas l'avènement du, du, CNG et quand on CNG bi muy démarré man maa nekk le premier président de CDG de Kaolack en 94 kii okay. nekk au niveau national j'ai fait ba dafa 10 ans 2004 ma nekk président CNG bu kaw Kaolack bokk CNG donc déjà xamoon naa li fi ne mhm. waaw xamoon naa li fi ne xamoon naa aussi comment ni muy demee yooyu parce que xam nga xam naa fa ma juddoo dafa am ay arène de lutte arène nekk xale bu ndaw faw nga bëri parce que bu ñuy sàjj ndëndee sax a 6 ans da nga dem ci arène bi xam nga ngeen di bëri bëri xale yooyu. day mhm. euh, bu ñu ñëwee ay ñoom Doudou Bakassar ak yooyu. Mhm. dañuy topp parfois nga dugg seen biir sax day burle ci xam nga dugg seen an làmb ci comme tout enfant. <laughs> voilà. mais mais man bu may ñëw.